leeram te doon lay taas ci barkeem Cheikh Ibrahim xalifatu Cheikh Mouhamad Mamoun ñu ngay nuyu di la ziyaare ci bés bi di la seedeel ne ñu ngay gis nañ nga yow ñu ngay seedeel nga seedeel ñu ne yow gis nañ ndax gis boobu ñun suñ ko amee rek dañ doon ut ki yëpp am nañ ko ñu ngi lay ñaanal yàlla yàlla yàlla sa teraanga dooli sa barke dooli sa xam-xam ak gis si yu ñëpp am nga yéene yu bëri ci réew mi am nga bëgg bu bëri ci réew mi gannaaw bu loolu passé ñu ngi suñ mbokk yi Touba yi ñu fekk nga xam ne Touba xadara bu fa nekk ak xadara bu Cheikh Ibrahim du ñaari xadara benn xadara lañ ndax ñoo bokk li ñu ñoo bokk li ñuy xëytu ñoo bokk li ay jubluwaay kon ñu ngi leen ci leen wax ne yéen a ngi seen kër euh, yéen a ngi seen place fii bu ngeen fi ñëwee ci ron Cheikh euh, Ibrahima ñu Cheikh Mouhamad Mamoun yaakaar naa ñun ñooy sokkee bu gan bi euh, yéen yéenay sokkee bu ñi xam ne ñoo moom barab bi yéen a ñu tatagal ñu leen di gërëm di leen ñaanal di ziare di nuyu xalifa bu mag ba fa nekk di ko ñaanal yàlla sémb yëpp sémb yëpp yàlla ko yàlla àggali ak xaraaraat bi nga xam ne jël na ko ci Touba te éenewu ci dara lu dul sellal Touba bëgg Touba gën a nekk dëkk boo xam ne dëkk bu mu xaddasa loolu su ko Cheikh Mountakha buggee di ko doxal dafa ci ay ndigal ñi nekk Touba ak ñi àgg ci Touba la bëgg ñu jëriñu waaye Touba yëkkati ko na ba pare di tatagal suñ mbokk daara sëriñ mu di ko patagal bu baax a baax di ko ñaanal yàlla yàlla yàlla àggali ay mébétam yëpp xam nañ ay bëgg-bëggam xam nañ ne ndongo daara la xam nañ ne kilifa diine yëpp ñoo ko ñor ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla yàlla àggali mbiram di tatagal mbooleem ñu fi ñëw di wax ne fii ku fi ñëw rek na sa xel dal fii ku fi ñëw rek ndokk fi rek yaakaar naa loo fi ñaan ci ay xaaju rek yàlla doon la ko may waxuma la waaye lu topp ci sa xol bi ta ci tànta Cheikh Mouhamad Mamoun bii lu topp ci sa xol rek yàlla mën na la ko defal ci barke barkeem ak barke baayam ndax Cheikh Mouhamad Mamoun nit la woon koo xam ne moom amutoon dafa effacé woon boppam def boppam li daana bàyyi def boppam jaamu bàyyi def boppam taalibe bàyyi def boppam soppe di liggéeyal loo xam ne def na ko daf doon ñaan yàlla yàlla nañ ko ko defalal yàlla nañ ko ko tegal ci màndaxam Cheikh Ibrahim kooku nag moo xew tey kon bu xewlee danañ tafegal ñi fi ñëw ak ñi nar a ñëw di ñaan yàlla ñëpp yàlla nañ ñëw ci jàmm dellu ci jàmm Cheikh Ibrahim yow ak Sarak Mouhamadou Mansour ak ñun Tafsir ñu ngi leen di ñaanal ak famille bi yëpp yàlla yàlla fekk leen ci seen tànki baay te ngeen àggale ay mébétam yëpp te àggale lépp loo xam ne semboon na ko ba sembaat seen i seen bu bopp loolu ñu ngi koy ñaan waaye li ñu ko ñaan sax war na lay doon li ngeen bëgg ñëpp dana am lépp lu ngeen sémbu dana àgg ci seen bàyyi sémbu yëpp dana àgg ci seen i loxo yal na yàlla ci seen yoonu maam Cheikh Ibrahim ndax yéen a ngi ci li ñu wax rek mooy yal na leen ci yàlla saxal yal na yàlla dimbale leen may leen ay ubbite yu rëy ndax yéen xam nañ bu ngeen amee fan la am am bi jëm kon yal na yàlla ubbi leen buntu xéwal yu rëy buntu wërsëg yu rëy may leen seen yërmaale daay moo leen may leen yërmaane seen maam Mawlana Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu